li ci yenn kaay yi. li yenn kaay yi. El Hadji Ndiaye. Elhadji Ousseynou commission bi nga xam ne ñoom la ñu dénk loo xam ne jëm na ci ne nañu élection yi bi di xam sàll kay da koo gagné yéen bi di xamal ne bàcc yi kay tàmbali 58 virgule 27 pour cent yéen bi di xamal ne jamono ji nag résultat yi nga xam ne nag moom la doon da leen a yóbbu kaaw libération yéeni kaay di amal yéeni bi dem ba bàcc yooyu mu koy méngaleeg élection yi nga xam ne nag moo di Macky Sall bi di xamal ne jamono jii kay ki nga xam ne nag moo di Macky dafa dem ba roppi ki nga xam ne sax moo di Abdoulaye Wade bu nekkee ci ko jige dañoo mer ba fut waaw démb kay bi résultat yi génn dañoo jàpp ne yooyu résultat daanaka force gi moo am waaw Macky Sall kay da leen jaay doole ba nangul yi nga xam ne daal moom la am waaye nag dañoo jàpp ne deuxième tour mënutoon a ñàkk ci yile jongante yi waaw Idrissa Seck ak ñi mu ak Ousmane Sonko yéen

demande la ne jamono ji daanaka ab recours matatu ko ndax recours boo xam ne du jur dara ndax sàcc gi xas na ba am ba pare jamono ji daanaka du ñu def benn recours kàddu yooyu nag mënees na koo ci biir yéenekaay bi bi a daanaka torox tàngeek moo leen neex neex kon bokk nañu leen bàyyee loole lu ñu ci góobe gar ko musiba naaru laay xaw tuut kay mu xew fi nga xam ne nag moo di di ci a dëkk bu sell bii di Touba waaw yéenekaay bi dañu xamale ca la ay nit ñoo xam ne kenn xàmmeewu leen daal dem song ki nga xam ne nag moo di ajaratu sooda jamono ji ñuy dem nag yàlla ji jëf ju ñaaw ji nga xam ne porté na ca plainte di xaar nag mbir yàpp mujjee waaye ne ki nga xam ne moo def lu audio bi di ko wax naan ajaratu sooda la tadu moom dana ñu ko topp ba fu mu yam neex